général Malika attention Saliou Ngom laal na bopp ba général Malika Saliou Ngom général Malika Saliou Ngom ah attention Saliou Ngom général Malika war na ko ndomba war na ko ndomba téye ca bopp ba daw na diggante ndax dina ko ca bàyyi ah. war na ko ndamba xale bi dem na final Aboubacar Sarr ak Abdoulaye Wilane Ndoye demi-finale deuxième demi-finale Abdoulaye Wilane Ndoye Aboubacar Sarr ndeysaan Libidor ak mbonge bu lu ñuul Aboubacar Sarr moo gën a njool moo nge mbonge bu ñu càmmoñ ndeysaan ah, na lu Abdoulaye Wilane Ndoye di libidor bu Grand Yoff mbooloo moog Aboubacar Sarr Aboubacar Sarr moon woon ginnaaw Aboubacar Sarr moon woon ginnaaw libidor Aboubacar Sarr attention Aboubacar Sarr dem na jëli libidor libidor capté ko libidor roof na ko loxol gauche bi tegante nañuy bopp bàyyante waat nañu ñu ngi lew to ñu ngi lew to arbitre atte na leen avertir nañu Libidor benn avertir Aboubacar benn dañ leen ne bëre ñoo ngay bëri attention Aboubacar Sarr jël na tànku Libidor daw ak moom Libidor résisté Libidor a ngi tey ci benn loxo bi ah, a ngi koy sotti mu bañ ñu ngi doxe wet nu ngi bëre ay jàppante bi tar na ah tibb na suuf sa raso ko Libidor dem na song mais xale bi dafa mel ni dafa naqaree song njool la waaye dafa wàcc Libidor a ah, arbi atte na leen yéena ko gisandoo xoolal ma yàgg maar xoolal presse bi xoolal ma presse bi ni ñu toogee <laughs> gaa yi yaru jëlal jëlal ma suma frère yi xoolal kii ba Bécaye mbay la kenn du ko présenté loolu jarut wax loolu rek wax bu yàqu la Sénégal mais xoolal nu ñu toogee yar beeg teggit bi abu nduura gi xoolal caméraman yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy reporter yi xoolal ci kaw nag ah mais presse bi xoolal xoolal je xoolal Mali dañoo toog ci suuf ndeysaan presse baa ngi noonu ndeysaan yaa ci gis yaa ci gis mais yàgg maar ci kaw ci kaw mbokki Leewtoo boo xoolee ci kaw fees na ba ne dell laa ilaha stade bi fees na del pourtant tey du final ndeysaan ndeysaan xoolal ma jëlal ma lii ah fees na daal bana del maar loo ci mën ti dégg Libidor Aboubacar Sarr Aboubacar Sarr ak Libidor songo nanu songo na Aboubacar Sarr dem na jëli mu ngi koy bëgg a jël Libidor bañ na da ko wet bi ah mu ngi koy puus mu ngi koy puus ah Libidor remplacé na ko waaw waaw ah ñaari avertissement songoon nañu Aboubacar Sarr Libidor Ababacar Sarr Ababacar Sarr mbokki Leewtoo professeur El Hadj Serigne Gningue jàppante nañu Amadou Diop Gongu Joor Samel Cangaay gay jàppante nañu mbayang may woy eh lu may def ni Ababacar la ilaha illallah yàgg maar ci caméra bi waaye xale yi yàgg nañ ci bëre bi jël amagul waaye avertissement yi mën nañoo génne Birame dafa mel ne combat yi ci ëpp par avertissement la ko la ko la ko euh, mbër yi di gagné. dañoo nandante seen biir dañoo comprendre ante. waaw dëggantaan dañ lay dañ lay buux ci nga pour nga am avertissement. ah ooy oh, Libidor bul génnaat ah. Libidor nax na ko ba génne ko. stratégie la yàgg ñaar ñaar. Eh. te su ma juumul su juumul euh, kële. Libidor combat bi mujj ci Adrien par avertissement la ko gagné. xam nga dañuy yeew. bu mujj Adrien par par la ko jëlee. waaye mu ngi koy wut ak ne nii ku ci am ñetteelu avertissement yooyu am défaite te ñu demi final loolu du laa ilaaha illallaah ñu ngay bëre ñu ngay bëre jàppante nañ ci kaw jàppante nañ ñu ngi nattante doole yàgg nañ ci bëre bi ñu ngi lewato waat ay xanaa ah jàpp na tànk Libidor Libidor remplacé na ko lu ñu nar ku ci jëkk a génn gi boo wattuwul da ngay ñàkk moytoo ci am ñu ngi bëre ndeysaan déggal li fogole la Gibra Sarr ñaari xale boo wattuwul arbitre koy lijjante xoolal dem leen seeti seeni entraîneur yi déggal mbayang lum ne yayma yuɓanam ha peeta o yatama firkel e eh, borom lul sese ndeysan ehe eh, mbokki Leewtoo ndeysan bom xaado lanke mbisel libidor crochet na loxo ba ñu bare ci kaw ay eh, waay ku dof dof lu ba am lii de avertissement foo jëm ndeysaan fàttale na ma Mayende Ngom Clémence al na nam ñaan naa kama laa mbosto ndeysaan al demba ñi leen Moussa Ndofène bom xaada lanke mbiisel Max Mbargane ñu eh, borom Tap FM yàgg maar xale yaa ngi bëre attention Abdoulaye Wilane Ndool dem na jëli ko Babacar Birame Libidor expérience lay bëree parce que jàpp naa ni instant bu arbitre bi tranché mooy jël par avertissement victoire bi xam nga lamb def loolu tolluwaayu lamb la yàgg maar xoolal mu ngi gis nga nu mu diibee bu ñu jegee koy pousse mu génn wala mu remplacer ko yàgg maar dafa yàgg ci làmb suma ma juumul par expérience ni muy bëree sànq ba tey day jox waaju ji wet waa ji suy ñëw mu waraan ko kanam pour ñu jàppante continuer ci jàppante bi. eh yàgg maar sama cameraman bu baax boobu wangu ñaan nuyu nañ la Libidor. arbitre sifflé na ah benn avertissement. Libidor gagné na dem nga final waaw sant yàlla rek sant yàlla ak Libidor ragaluma loolu xam na ma Libidor xam na ma ah, mais loo doon wax ak Boy Faye Boy Faye mbër la ñun mbër lañ na gëm yàlla chaque jour ñu ngi ci tournoi di compétir mais damaa xam ne li muy liggéey moom liggéeyu ko li may daj daju ko waaw Malika dañ maa yónni yàqamti ma waa Fatick yónni ma yàqamti ma taxawaalu waruma. sa waay sànq ba tey mi ngi lay tëkku. c'est que. c'est que man maa mujjee ñëw ci simple bi mais kafu ma ci réew ma ci maa ci mujjee ñëw maa a nekk xale mais kafu ma ci réew ma ci barke Serigne Bamba. waaw noonu la demee lamb la ñu ne xale lañ dañuy liggéey chaque jour matin soir. nos femmes nos filles y a pas de maladie y a pas de maladie barke Serigne Touba. xale bi waxati na. loolu. man li mu door barke borom daar bu ñu jokkee dañ koy defal bagage. waaye ñu dañoo liggéey ay xale yu ndaw lañ. barke Seydouna Mouhamed. kii daa nekk xale nekk Malika. samay morom a ngi nii ñii laa barke Serigne Bamba. maa ngi maa ngi fay bu baax baax. waaw mais dem waaw sant yàlla bu baax rek. mënu ma waaw sant yàlla mënu ma gaay fi ne yàlla moom may rek ma dem final. drapeau Sénégal ñetti année yëpp may final pile de cent bi Kolda Fatick Mbour. kon kon bii nii dama ci teg sama bakkan incha allahu rabi bi non man amul ni ko ma mënti daan te incha allah bi di xam final bi dina wuute. mais bi doon yan bi daa diis. yan a organisé. lan comme ñëpp parce que bëri lu ci def rek. moytuwoon nañ ñu ngi liggéey ni mu waree def nañ la groupement ni mu waree waa Kees taxawoonu taxawoon nañu ni mu waree aussi tamit xam nga sama grand yi nii waa Zoual jàpp nañ ci euh, Arona Dieng mi ah jàpp na ci bu baax te incha allah ndam day des fii da leen di fete fete yi ñaaw parce que ni affaire de raison de Kees la fete fete fete bu baax laa koy def mu may tëgu wante yàlla baax na yàlla ma yàlla dooleel incha allah xamante ne bu baax li ma ci jaaxal bi léegi gis nga nu mu demee. waaw xam nga ñun dañoo xamante kii euh, bëri na ñaar yoon quoi lamb yi ñun ñëpp mu xamante moo tax mu demee noonu quoi 11 heures rek seer normal rek ba dem final loolu si nekk. Maysa Ndiaye. Ah, añul Maysa Ndiaye amuñu fayam. na tey du reer. waaw amuñu amuñu fayam non du tiit ndax parce boo xoolee waa kees mérite nañ am nañ 3 final individuel hmm. ak final kon mérite nañ lii drapeau bi quoi te incha allah dina incha allah dañ ko jël. waaw mais moom dafa ab booy mi parce que bëggul jàll jàkkaarloo yow dafa tiit fu mu ne. waaw non amul problème loolu dara. incha allah waaw amul benn problème loolu dara affaire bi suba ma woon boole suba ñu taxali ko incha allah ku xam ku man waa Abdoulaye Ndoye kii mooy libidor bu Grand Yoff mbooloo. tàmm na ko. yàgg na di ko def. yàgg maar ne ko bandum. fier d'être Thiessois. purement ma Ngoundiane Libidor a ngi Mokki Leewtoo nii koy tëjee ba suba ak final Thiès Dakar